téléspectateurs de la 7TV c' est encore un plaisir de vous retrouver dans votre émission avocat émission bi nga xam ne moom mooy traiter les questions juridiques les cas juridiques mais aussi l' actualité de manière générale tey nag ñu bëgg ñëw ci benn problématique benn problématique d'ordre général muy les bâtiments menaçants de ruine parce que gis nañu au Sénégal de plus en plus dañuy nemmeeku des effondrements de d'immeubles ñuy def ay dégâts yu bëri bëri bëri des dégâts humains mais aussi des dégâts matériels moo tax tey ñu bëgg si def benn focus waxtaanee ko xam lan mooy les causes xam lan mooy les solution mais aussi waxtaanee ko de manière générale ñu ciy dalal ki nga xam ne mooy Mamadou Fall nekk un expert immobilier agréé mais aussi un membre de l'ordre national des experts du Sénégal tey moom la daral dalal bëgg waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy problématique bi Modou Fall ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen waa 7TV mhm. ci opportunité bi ngeen ma may pour mu mën a waxtaan ak yéen ci problème boobu nga xam ni dafa lëmbee jamono ji fii au Sénégal bâtiment yaa ngi daanu mhm. kër yaa ngi màbb ba chef de l'État sax ci benn conseil des ministres gis na ko wax na ko jàmbat na ko ba wax ministre de l'urbanisme mu seet yan xalaat la ci war a def yàlla mi dara tëwul nag may ma chance man ma présider commission scientifique bi nga xam ni moo doon saytu mbir moomu ñu def ko nag ci bu yaatu ak acteurs yëpp architecte yaa nga fa woon bureau d'étude yaa nga fa woon mm-hmm. ingénieur yaa nga fa woon entrepreneur yi ñoo nga fa woon kon bon soo leen ma ci laajee dinaa ci sawar incha allah. ci sawar tontu bu baax a baax je pense que fi nga daanelee fa la ñëwaat sax parce que comme ni nga ko waxee président de la république ci benn conseil des ministres joxoon na ki nga xam ne mooy le ministre de l'urbanisme d'alors pour mu def ci ab seetlu. yow nga nekkoon ki nga xam ne mooy président bi nga xam ne moo jote woon commission scientifique bi tey jii nan la ñu mën a lan la ñu mën a jàpp ci étude boobu ngeen xam ne defoon ngeen ko ko boobu ba tey gisuñu des avancées ci aspect bi est-ce que joxe ngeen rapport est-ce que est-ce que est-ce que donc des questions yoo xam ne ñu ngi koy posé wu donc est-ce nga ñëwaat vraiment ci liggéey bi nga xam ne defoon ngeen ko jamono jooju. bien sûr. Mhm. bi ko chef d'État di joxe liggéey boobu. Fofana moo nekkoon ministre de ñu commencé ko wante bi ñuy paree Seydou Sow moo jëbbal liggéey bi parce que moom la fa fekk mm-hmm. def nañ rapport effectivement mm-hmm. euh, lan la mujj nag xëy na dugal nañ ko ci code de l'urbanisme bu bees bi ñu doon tëggaat ak code de la construction bu bees bi ñu doon tëggaat mën na nekk am na ci ay xalaat yoo xam ne ñun génn nañ ko fa ñu dugal ko ca wante balaa loolu yëpp ñu ci sori dafa am lu am solo loo xam ni képp ku teey di seetlu réew mi gis nga ko mooy bâtiment yi daanu yëpp ak immeuble li nga xam ne ñu ngi naan dañuy menacer ruine wala déet yépp mhm. ay construction privée la concerné nekkul des constructions yoo xam ne c'est public dina raar mun naa wax ni sax ma suma koo dégg man mii mhm. que ñu ne benn université batiment ba daanu na que ñu ni benn école batiment ba daanu na mhm. que ñu ni benn hôpital batiment ba daanu na benn château do wala benn immeuble administratif. daan li koy wax yi daanu yëpp. Mm. ay bâtiment privé la. loolu nag. Mm. lu am solo la. lu solo la loo xam ni war nañ koo gëstu. war nañ ko gëstu est-ce que lu muy dinañ ci dem léegi léegi directement est-ce que lu muy wane si l'État am na les moyens mun na jël des ingénieurs mun a jël des architectes alors que li privés amuñu assez de moyen pour jël ñoo xam ne des technicien de l'art yoo xam ne xam nañ bu baax a baax la ñuy liggéey. li ko waral c'est simple ñun techniciens yi xam nañu ko c'est que bâtiment public dafa am ay sart yu ko tënk képp kuy entrepreneur di liggéey wala ngay tabax batiment publique dafa am ay cot yu la tënk séq tënk la bi ci njëkk mooy code de marchés publics bi ci tegu mooy cot de l'urbanisme beneen bi mooy code de la construction te yooyu yëpp ay sart la ñu am yoo xam ni an fokk nga jaar ci ay procédure yu wér péng pour mën a defar sa batiment ba musiba yi ñuy gis ci bâtiment privé yi du am duñ ko ci gis donc loolu lay gën a nduru c'est-à-dire code bi dañ koy respecté ak yi ni mel donc mun nañu raisonner à contrario donc bu ñu ñëwee ci privé yi c'est-à-dire du ñu respecté aspect yi nu mel yooyu nëpp moo tax vraiment ñuy nemmeeku des effondrements du du côté des privés plutôt que de l'État et du public. absolument ndax contrainte yooyu am ci code yooyu ma la wax léegi tënkul totalement promoteur. privé bi promoteur privé nag bu bëgg lu baax xam yoon mm-hmm. bu la neexee nga jaar ci tënku ci waaye boo ko deful tamit kenn du la woo ne la li tax defoo ko ndax du bâtiment wu état mm-hmm. waaye nag ay daan mën na la cee fekk loolu xam naa ne buñ ñu duggee ci biir waxtaan dinañ ci dinañ ci dinañ ci dinañ ci ñëw c'est vrai mais d'autant plus que nee nga promoteur privé mais aussi les sénégalais la plupart du temps aussi duñ jël des promoteurs privés c'est-à-dire benn maçon la jël boo xam ne seen poste moo tolloog loolu ñu jël ko mu liggéey alors ko kooku xamul dara wala bu ci xamee sax c'est-à-dire amul science beeg expérience bi nga xam ne war na ko am ci wàllum liggéey bi aussi wax jëpp a ngi noonu nag mhm. Sénégal yi ñooy architecte ñooy ingénieur ñooy entrepreneur ñooy lépp or liggéey batiment du caaxaan surtout boo dee def ay fukki étage ay juróom-ñaari étage ay juróom-ñetti étage loolu nag xam-xam la laaj mhm. boo xam ni ñaar ñoo ci ëpp solo mooy architecte bi mhm. ak ingénieur bi bu kenn juum nag foog ne kenn ci dina dem bàyyi ki ci des mhm. architecte bi mhm. boo buggee kër gu rafet am kër gu ñu aménagé bu baax ba ku ko gis ci biti ci biir yépp naw ko architecte la waaye nag soo bëggee mu dëgër picc mën a dund ay trente ans quarante ans kooku ingénieur moo fay jaar. ingénieur moo fay jaar donc ñoom ñaar vraiment duo la boo xam ne kenn mënul dem sans sans keneen kii monsieur Fall ñëw nga un peu ci li nga xam ne mooy les causes nee nga les causes un peu techniques mais aussi wax nga ci li xam ne mooy les causes juridiques le non respect de la législation bi nga xam ne moom lañ fiy teg ci wàllum immobilier ci wàllum foncier causes yi fa lañ koy yemale wala am nañ yeneen causes yoo xam ne mën nañ ko jël en compte. biñ ñu sante liggéey boobu man ma présider commission bi dañ koo yaatal woo bureau d'études yi woo laboratoire de géotechnique yi woo ordre des architectes woo ordre des experts woo ingénieurs yi ñun ñëpp ñu toog waxtaan li gën a njëkk a feeñ ci waxtaan wi mooy am na batiment yoo xam ni dañ nekk di ko tabax et en cours de construction muy daanu. je pense que sur la VDN am nañ ci benn exemple bu pertinent. bu bees pull. Mhm. boo xam ni fan yi dégg nañ ko fi. c'est am na ay batiment yoo xam ni dañ koy tabax mu nekk bees muy mën muy menacer ruine am it looloo ëpp xëy na ay batiment yu màggat dem ba yàgg yuy menacer ruine mhm. waaye façon bu ci nekk ci ñoom mhm. am na lu ko waral am na lu tax ñun nag commission bi suñu rôle moo doon gëstu loolu pour mën cee wax lan la ñuy def pour que loolu dakk dakk bu ñu jëlee li nga wax cest à am na trois trois types de bâtiments yoo xam ne dañuy menacé de ruine comme ni nga ko waxee yi nga xam ne en construction la yeneen yi ñu dabax ko ba pare mu daanu yeneen yi c'est la vétusté bu ñu ñëwee ci premier cas de figure cest à yi nga xam ne dafa nekk en construction pareegul daanu loolu nan lañ ko mën a comprendre euh, bâtiment yi nga xam ni mhm. dañoo nekk di ko liggéey ba pare ñu xam ni lii kat jëmul kër dina daanu mbaa dina nasax li ñu trouve ñun comme cause moo de généralement fondation yi ko yore yi ko téye méngoowul ak poids bâtiment bi ndax boo seetloo Sénégal nit dafay am këram mu nekk R plus mu voyagé dem bitim réew rek ñëw am xaalisam mbaa mu gis ni location léegi neex na dox na mhm. mu yan kër ga mu dajale rek waaw yëkkatiwaat ñaari étage wala ñetti étage te xamul ndax fondation bi àttan na ko wala attanu ko ko c'est beneen cause bi moo di. fi nga koy tabax saytuwoo suuf si. ndax joor la ndax argile la. ndax beneen nature sol la. te sol bi ci taxawaayam mooy wane ban tibb fondation. lañ ci war a def loolu nag ingénieurs yi ñoo ko xam. exemple ma lay jox mooy. jam mhm. ñaajo ñu ngi ciy wax bëri jam ñaadoo mhm. argile gonflante moo fa am. Mhm. boo fay tabax dafa am précaution yoo war a jël yu bokk tax booy tabax fu mel ni Kébémer mbaa mexe nga xam ni solo joor moo fa nekk mhm. beneen cause bi toujours ci bâtiment yi nga xam ne ñu ngi nekk di ko tabax mooy matériel wala matériaux yi nga xam ni moom lañ koy liggéeyee nekkul du bon qualité. qualité day am aussi. biñ ci gën a tuumaal nag. Mhm. mooy dalu plancher yi nga xam ni. Mhm. ay urdi lañ ko defee wante urdi yi dafa tudd chapeau de gendarme façon urdi la. Mhm. boo xam ne du am talon. nga xam ni raax bi sax bu xëppatikoo rek. daanu wala fer yi commencé rouiller rek mu commencé effondré dootul dëgër beneen cause bi da ngay gis koo xam ni day tabax immeuble am yow nga ñëw sa terrain nekk nu nga war a tabax à côté ngay gas gas boobu ngay gas day wàqi ay fondation léeg-léeg sax mu néewal doole fondation bi wala benn canalisation SONES wala euh, bu d'assainissement jaar foofu nga daal di koy toj ndox ma wala gaan daal di wànqi suuf sa nekk ca suufu fondation bi loolu it dinay daaneel yenn bâtiment yi nga xam ne dañ nekk mais boo ma boo ma waxee loolu damay xaw a laajewaat un am na ay autorisation de construction yi nga xam dañ koy dañ koy joxe nga xam ne moom moo war a vraiment nekk la base de la construction est-ce que aussi autorisation de construction yooyu ñi ngi koy respecter mais aussi est-ce que contrôle bi nga xam ne moom moo ci war topp aussi c'est fait aussi. loolu dinañ ci ñëwaat léegi ci kanam. waaw waaw loolu kon question la bu euh, ñu solution yi ak ci bi ñu avancé mhm. tuuti. Mhm. Euh, léegi nag bâtiment yi nga xam ne yu bees la. waaw récent. récent ou lan mooy tax muy daan. yu tabax ko ba pare rek mu daan. première cause bi mooy changement de destination. Mhm. da ngay tabax sa bâtiment def koy appartement. donc ay famille ñoo fay dëkk mm-hmm. un mari son épouse ses deux enfants nit ñëw jël ko mu nekk école donc recevant du grand public énormément de public donc day charge ya muy bâtiment ba di am bokkul ak charge yi nga xam ne ingénieur bi moom la sóoraale woon bi muy calculer bâtiment bi destination initiale bi nekkatul changement de destination changement de destination dafa wala léegi gaa yi moom lañ xewal ndax nee nañ moo ëpp xaalis. magasinage ay marchandises lourdes. yu jóge port ñëw waa ji war ko am fu mu ko stocké dugal ko fa pois boobu diis lool ci bâtiment bi loolu mën na indi mu daldi daanu daanu leneen ci topp mooy. bañ a respecter nag norme de construction yi exemple ma la ciy jox mooy fer béton ñu bari nee nañ dafa am fer bu baax normalisé ak fer bu bon yow boo jëlee fer bu bon bi liggéeyee ko sa bâtiment lu ne mën na la caa fekk parce que attention nit ñi dañuy fàtte loolu béton kese téewul dara du poteau du poutre fer bi nekk ci biir moo ëpp doole sax béton bi ingénieur yi dañ lay wax ni la doole fer bi mat na quinze fois doole béton bi m égale quinze coefficient d'équivalence leneen li ci topp mooy kër yi ngay xam ni dañ koy tabax booru géej meex mi ak sel bi dafay attaquer fer yi nga xam ne mu ngi ci biir béton bi ba nga xam ne ingénieur yi bu ñu ko dee calculer diggante fer bi ak coffrage bi liñ ciy bàyyi day gën a xóot pour que brise marine bi du ko gaaw a attaquer yi dañoo joxe ay normes wax ni kat boo nekkee booru géej bu fekkante woon loolu la ñuy wax enrobage dafa waroon nekk cinq centimètre bii dina war a dem ba 2. wala deux virgule cinq pour gën a sari mbeex mi. waaw pour moytu li nga xam ne mooy brise maritime bi. loolu daal mooy cause yi nga xam ne. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy dal bâtiment yi xam da ngay gis mu bees pul. Mm-hmm. waaye na sax na. waaye na waaye na sax na ñëw nga ci ñëw nga ci cause yi je pense que troisième bi mooy euh, vétusté yi. ñi maison yi nga xam ne dafa dafa yàgg te je pense que ni dañ ciy jëlaale quelques exemples lu mel ni kaw parcel wala kaw Médina nga xam ne vraiment zone yooyu dañ ciy gis ni ne effondrement d'immeuble c'est vrai fréquent lu waral lool vétusté bi la wala leneen da cay xew aussi. très bonne question. Mhm. parce que moo ëpp nag. bâtiment yi nga xam ne dañoo yàgg. Mhm. ba màggat. li ñu gën a seetlu moo di mhm. étanchéité bi. ñu bari dañuy defar seen terrasse defar seen salle de bain waaye étanchéité duñ ko ci def étanchéité mooy fànq ba nga xam ni ndox mi du yegg ci dal bi yegg ca feer ya ba di ko ruye étanchéité mooy nekk ci kaw kaw kaw boo tabaxee ba bu dee terrasse la mhm. bu dee salle de bain la mhm. da koy teg balaa ngay sa carrelage ah, waaye nag dafa xaw a cher moo tax ñu bari dañ koy négliger te duñu xam rôlam du ñu xam njariñam or loolu mën na nasaxal bâtiment bi ba ndox mi yegg ca feer ba rouillé ko te feer bu xasee ba rouillé rek amatul njariñ d'autant plus que mooy mu ngi mel ni mhm. nga yore sa mburu mu nëpp mhm. euh, beneen cause bi nag bu am importance mooy balkon yi yi mhm. boo seetloo kër yu bari dañ naan balcon ba moo daanu. balcon bi ay Médina wala parcelle wala feneen xam lu tax. lu waral loolu. loolu ci technique d'ingénieur balcon moom la ñuy wax console console ni ñuy defaree fer yi ni ñu koy armé fañ koy teg bokkul ak fu ñuy teg dalle courante loolu nag maçon yi xamuñu ko. ingénieurs yi ñoo ko xam ak architecte yi. ñoo ko ñoo ko xam. alors boo ko jalawlee fer bi war a nekk ci suuf nga def ko ci kaw amatul njariñ moo tax balcon yi di daanu wala boog mauvais entretien ak maintenance. parce que Sénégal fooruñu ci entretien. entretien bi aussi problématique bati bâtiment ngay gis bay bâtiment sax yu bees. deux ans trois ans après nga foog ni quinze ans la ñu am wala vingt ans. ndax dañu am problème mu. maintenance ak entretien. ak entre ak entretien dinañu dinañu avancer un peu monsieur Fall ci wàllum recensement bi ba ñu defee recensement bi inspection générale des bâtiments nga xam ne dafa rattaché ci li nga xam ne mooy le ministère de l'urbanisme nee na au Sénégal boo jëlee li nga xam ne bâtiment menaçant de ruine yi jàpp nañ ne c'est mille quatre cent quarante six bâtiments Dakar rek je pense qu'on est environ six cent bâtiments yoo xam ne ça menace ruine. ak mi nga xam ne danger bi noonu la noonu la mel est-ce que jotul aussi ñu jóg gaaw gaaw gaaw def ci ay jéego balaa leen di ci xew. très bonne question. Mhm. effectivement ci commission bi. Mm -hmm. y avait un représentant de l'inspection générale des bâtiments dépendant du ministère de l'urbanisme ils ont fait un excellent travail ils ont dénombré ñu ne 1446 bâtiments menaçant ruine. Mhm. waaye recensement doyul. doyul dañ ko war a compléter ak benn diagnostic sans complaisance parce que ku xas ba tabax bâtiment ay millions et des millions cinquante millions cent millions nga ñëw ni ko suba suba dinañ ko daan war ngaa teg ci moom loxoom lu wér pëng loo xam ni amul farfarloo amul tricherie amul corruption kon boobaa man yaakaar naa ni recensement bi dañ ko war a yokk par des experts professionnel assermentés yoo xam ni bu ñu xasee ba ni bâtiment bii daanu rekk ci sës kenn dootu ko weddeeti dootu ko lam-laame ndax nag appréciation bi ñuy def c'est très technique batiment bu bees boo xam ne tabaxuñ ko comme il faut fondation yi ak ossature bi dara baaxu ci kooku mën na écrouler wu à tout moment. à tout moment. or bâtiment mën na am vingt ans waaye bañ ko daan tabax ñu jël précaution yépp liggéey ko convenablement boole ci di ko entretenir bu baax mën na vivre encore trente donc entretien bi dafa am solo trop ci wàllu bâtiment. trop entretien dafa am solo. bi ci ëpp solo mooy deux ou trois ou yu ne nga xoolaat sa étanchéité. xoolaat sa mm-hmm. bu fekkante étanchéité bi yàqu na nga remplacer ko exemple boobu rek laa lay jox. Mm-hmm. loolu da ci am solo lu wàll lu mel ni lu mel ni li nga wax ni léegi léegi entre entretien bi mais sànq yaa ngi koy wax bâtiment menaçant de ruine aussi dafa am beneen aspect boo xam te dafa nekk aspect financier c'est-à-dire ñi nga xam ne daf leen a daf leen a dal aussi des fois c'est compliqué pour ñu prendre seen bopp en charge li ni te boo xoolee compétence yi nga xam ne moom la ñu moom la ñu dégagé la plupart du temps mairie la ñu jox mu mu mu régler cette situation est-ce que jotul aussi ñu xool comment faire pour euh, appuyer financièrement ñi nga xam ne ñu ngi ci situation boobu parce que bâtiment Monastère de Ruyne ñi muy dal aussi des fois financièrement du ñu mën a régler ce problème la tout seul. wax nga dëgg. collectivités locales yi. notamment maires yi. maire boo dem am na service technique communaux mais néew na ñi ci am compétence ak moyens appropriés yi pour assumer seen responsabilité ci vérification contrôler plan yi ba pare contrôler nag surtout sur site ndax tabax yi ñuy tabax jaar na yoon wala jaarul yoon en réalité en réalité mm-hmm. autorisation de construire par exemple ci la waaw sànq maa la koy laaj kay ci ñëwaat mm-hmm. urbanisme ñoo ko daan signé léegi avec la décentralisation mairie ñoo koy signé mais mairie urbanisme moo leen di préparer dossier bi yépp ñoo jox leen ñoom signé rek la ñuy def. xamuñu sax lu ne ci biir dossier ba. or dëgg bi xam nga mooy lan il faut que mairie yi. autant que possible ñu am des ressources humaines de qualité architecte urbaniste mhm. ingénieur expert yoo xam ni dinañ mën di dinañ mën di saytu plan yi di mën a dem tamit sur le terrain di contrôler construction yi. contrôle parce que y' a pas de contrôle boo xoolee. au Sénégal absolument mhm. il leur faut également des moyens logistiques parce que contrôle. yëmul ci ñëw rek xool am na ci yoo xam ne dafa laaj nga am laboratoire daf ci am yoo xam ne dafa laaj nga am matériel topographique ak yeneen matériel loolu mooy li ñuy li ñuy laaj. loolu mooy Ali Kalen gi parce que maire yi amuñu dooleem amuñu moyen amuñu amuñu moyen dinañ ñëw un peu ci li bi parce que des fois da ngay gis benn bâtiment boo xam ne menace de ruine comme ni ko waxee contrôle aussi ça n'existe pas tey jii nii bu ñu boree prendre en charge benn bâtiment menace de ruine boo xam ne privé bi moo ko moo ko moom tey ji lan mooy procédure bi nan la ñuy def de tell sorte que ba def arrêté de destruction boobu noonu ñuy dégg venant de la part de l'autorité ou bien du représentant de l'État très bonne question comme ni ma la ko waxee ci njëlbéen entreprise de construction yi dafa am lu leen tënk muy code des marchés publics code de l'urbanisme de la construction ñu war a respecter donc ay normes suñ ko deful ñu daan leen procédure boobu nag buñ ko defoon ci batiment privé yi coow di jib làmbaay bi ñaaw ma siteel la ko boo amee sa autorisation de construire ba pare benn entrepreneur bu dee liggéey bâtiment dafa war a def ce qu'on appelle des études géotechniques mooy jéem a xool façon suuf bi nga xam ni fa la ñuy def bâtiment bi argile la ban la suuf la walla lan la parce que loolu moo koy xamal doole bi nga xam ne suuf bi mën na ko am pour supporter fondation yi loolu mooy benn war a def lu ñuy wax ay études topographiques mooy xool ndax suuf si maase na wala maasewul ndax canalisation yi bu jaaree fii pente bi dina baax wala du baax ndax ëllëg si biir du indi ay ndox yuy yàq batiment bi walla déet troisièmement bi mooy dafa war a def ay technique techniques études techniques nag ci la ñuy xool ne rapport géotechnique bii kat wax na ni ma suuf si nii la mel nii la mel nii la mel kon fondation yu moom laa war a def nii lay mel nii lay mel nii lay mel pour que bâtiment boo fi tabax au moins pendant dix ans dara du xew dara du nga xool tamit ndax étanchéité yi war na ci wala waru ci loolu yépp ay préalable la yoo xam ni danga ko war a saytu avant ngay commencer bâtiment bi loolu nag cela suppose évidemment que nga am architecte que nga am ingénieur que nga am contrôle bureau technique comme ay Socotec comme ay Veritas comme ay Alpage comme SCAT International pour ne si que cela te yooyu yépp nag boo dee def un bâtiment ab appartenant à l'État entrepreneur bi daf ci jaar. daf ciy jaar foog ñu respecter. donc promoteur privé yi aussi. Mhm. dañ waroon fexe ba obligatoirement foofu ñuy jaarale bâtiment administratif yi. ñu jaarale fa seen bâtiment privé yi. ñu jaarale seen bâtiment privé yi monsieur sama pré sama réalisateur mi ngi naan ma temps bi lim ñu dese bariwul mais du ma ci du ma du ma jeexal te laajuma la la dernière question parce que li nga wax nii léegi-léegi dafa am solo. c'est-à-dire demande na des moyens des moyens yoo xam ne vraiment je pense que ni du tey lañ koy mën a du tey lañ koy mën a régler mais tey jii bu ñu bëggee régler li nga xam ne mooy les bâtiments menaçants de ruine dans le court court court terme lan la ñu war a mën a utiliser vraiment pour vraiment arrêter l'hémorragie après nag au fur et mesure comme li nga wax les perspective yooyu noonu ñu war a mën a def au fur et à mesure l'État ak les services concernés ñu dox si pour mën a vraiment combattre de manière effective ce ce ce ce fléau. xalaat. Mhm. te commission bi tamit loolu la tënk mooy te état ngi ci yoon wi parce que je sais que réviser nañu le code de l'urbanisme réviser nañu le code de la construction ndax dugal nañ ci lépp li ñu leen wax ñun nag loolu wu dese na ma wóor. des na des na xool parce que c'est son pouvoir discrétionnaire. et régalien waaye challenge bi xam na mooy lan. Mhm. état ak démembrement adopter une nouvelle réglementation plus rigoureuse et plus coercitive mmh. en matière d'urbanisme et de construction. parce que nag buñ ko waxee ci olof nit amul prix. Mm-hmm. dañu war a ku sàkk sàkkoowul ak yoon. Mm-hmm. ñu am nuñ la def daan la. te daan yi ñuy def ñuy tabax bâtiment de yi. Mm-hmm. buñ ko defoon ñi nga xam ni ay promoteurs privés la ñu di tabaxal pour seen bopp pour am ay loyer buñ ko defoon histoire yi dootul amati effondrement dootul amati te nag dinañ préserver la vie des gens qui est beaucoup plus importante que les yi ñu ciy am ci seen loyer. ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax du Fall. ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax tey jii nii moom la ñu dalaloon ci émission avocat waxtaan ak moom sur les bâtiments menaçants de ruine ñu ngi lay jaajëfal jox la kàddu gi bu fekkee da nga amaat loo ci dolli ñu dolli ko ci ñu clôturer. ma di leen sant di leen gërëm. Mhm. ci opportunité bi ngeen ma may pour wax ci. domaine la bu passionnant boo xam ne sama domaine la depuis quarante ans man ci laay yëngutu mhm. liggéey naa ci entreprise liggéey naa ci architecte liggéey naa ci bureau d'étude ba yore sama cabinet bopp di sant tamit nag samay collaborateur ak samay confrères parce que bi may préparer émission bi man je suis de l'école nationale de travaux publics sama ay collègues dama leen ko wax ñoom ñëpp ñu envoyé ma seen contribution te ñoom ñëpp ñi urbanisme lañ doon liggéey ñii construction ñii travaux publics xam bu baax li ñuy wax donc ma di leen gërëm di leen sargal di leen dollu njëkkeel te wax ni bu juum amee xëy na ci man la wante ñoom li ñu ma waxoon yëpp noté naa ko maa ngi leen di gërëm te waxtaan nga ko merci beaucoup Mamadou Fall tey moom la ñu dalaloon comme ni ma ko waxee ba ñuy commencé émission nekk un expert immobilier agréé mais aussi un membre de l'ONES ordre national des experts du Sénégal comme ni ngeen ko gisee temps bi je pense que ni moo gàtt mais mënoon nañu gën a développer parce que comme ni nga ko waxee c'est un thème qui est passionnant boo xam ne war nañ ci mën a wax lu bëri bëri mais je pense que liñ ciy retenir mooy li nga wax dernièrement parce que effondrement d'immobilier nit ki la vie loolu moo ëpp lu ñu mën a def kon boog war nañ def daar daar ñu def ci ay solution pour régler ko loolu ci dolli je termine en disant que mhm. maa ngi sant rek waa ordre national des experts ñi ma tànn mhm. parce que ñun ñëpp ay confrères lañu mhm. keneen kuñ ci tànnoo nit war nga mën a def lu toll li ma def mbaa lu ko ëpp waaye Lamine Sarr ak président Saliou Dieye ak conseil de l'ordre bépp ñi ma wóolu ba wax ma ma tontul leen parce que ñoom dañoo liggéey liggéey bu am solo ci code de la construction boobu ak code de la de l'urbanisme boobu ak commission bi sur les effondrements bi ko nguur gi demandé ministère de pour ñu def ko. kon maa ngi leen di ñu ngi lay remercier bu baax a baax Modou Fall moom la nekk nekkaloon tey remercier aussi ñi nga xam ne moom la ñu àndal ci réalisation bi Amadou Ndak Kébé ak Cheikh Niang ñoo nekkoon ci réalisation bi Khady Sarr moo nekk ci montage ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier di leen jox dig daje incha allah la semaine prochaine merci beaucoup.